gëm-gëm bi nga xam ne am naa ko ci moom mooy lépp loo xam ne daf koy def daf koy def ak cohérence te loolu dafa am solo ci doomu aadama ndax manoon na ne Babacar kat bon voilà mais moom nee na dafa am espoir bu rëy rëy ci man te boo xoolee tey ñi muy tëgg fii ñëpp ci ay mbër ay mbër lañ yoo xam ne seen i mbokk ak seeni i dañoo am espoir ci ñoom donc yaakaar boobu mu am daal yàlla bu ko yaakaar euh, yàlla bu ko yàlla tas beneen bi ci des xam nga boo xoolee sama jigéen ñi ma àndal sama sœur la àndal di koo xam ne vraiment sama sœur la bañalu ma dara euh, boo xoolee tey ay doomam da leen a mobiliser ñëw ànd ak man Yacine Tamba doomu ndeyam mi ngi nii ci sama wet maa ngi ànd aussi ak sama secrétaire général euh, réseau des artisans maa ngi ànd ak président Moussa Ndiaye nekk président IDAC union départementale des artisans de Guédiawaye maa ngi ànd ak Yacine Tamba di sama jigéen maa ngi ànd aussi ak Marème Ndiaye la trésorière nekk présidente des coiffeuses de la commune de Golf Sud donc ak jeunes yi nga xam ne ñoo ngeen gis ci suñu gannaaw ñuy seenu Golf Sud donc kon tey bés bi bésu Golf Sud la Golf Sud kenn manqué wul promoteur bi ko tëgg ci commune bi Golf Sud la dëkk mbër yi koy bëree am na ñu ci dëkk commune bu Golf Sud donc kon mënuñu def lu dul rek jëmmal Euh, drapeau bi di ñaan suñu borom dugal ñu ci bisimilahi rahmaani rahim ñu génn ci am alhamdulilahi rabil alamin madame Fat Sarr aussi mi ngi ci yoon bi di ñëw waaye yabal na doomam ak jabootam pour ñu jiitu si leen ndax dafa dem chambre de commerce tey donc bis bi daal vraiment am naa ci mbégte am naa ci yëg-yëg bu rëy rëy rëy rëy macha na jigéen baax na ci kàddu waaw ñu kontaan ndax ñuy kontaan mooy suñu jàmm nañ ko tuddee ñu war a li ñuy def lép ñoo jàppale ko ndax moom fi mu jub jëm yàlla na si suñu borom yóbbale lii ñu ko def nag yàlla na doon mu njëglaayam ci lépp yàlla na doon président ba ñu koy mën di ko kii doon maire ñu koy laa daal suñu bi ñoo ko xam maa nag sama ci samay jigéen nag Yacine Tamba ngi ni sama rakk ngi ne Marle sama rakk ngi ne Ndiaye Diatta sama ñii ñëpp suñuy càmmiñ lañu te ñuy baax ci ñun lañu ñuy toppatoo lañu dañoo bëgg rek bu ëllëgee mu ëpp fii te incha allah yàlla dina ko ndax xolam rafet na jàpp nañu mbooloo la jàpp na ñëpp mbooloo loo xam ne mi ngi dem ak ñun dañ koy ñaanal rek fi mu jëm suñu borom yeggale ko. nee naa la trésorière bu ñaawul baa ngi nii. yow lekkoo xaalis bi te boo lekkoon xaalis bi duñ la ko laaj. waaye sa bula lan waaw jàppale suñu président ak Babacar Sadekh Mbop mu nekk président euh, fédération des artisans de la commune de Golf mu am bés bu rëy bi nga xamante ne nag tey euh, tuddee nañ ko ko mu nekk lu rëy ci ñun moo tax ñu def nii rek ñëw gunge ko. Aïcha kontaan nañ. merci Aïcha xàll leen Aïcha. voilà.